alaikum patriote Tay, comme d'habitude comme nous ma koy la vidéo yi gaaw Cela que laa depuis sans concentré au nekk ci affaire Nous nous direct sur le plan éducation et la citoyenneté parce que les yëpp Pape Alé Niang wax na si yeneen yi gars yi nañ ci wax mais man côté bi ma intéressé côté bi ma am déception Macky Sall c'est un ignorant quoi vrai ignorant la yéen Sénégal xam ngeen ne adduna bi ñun suñu éducation dafa am ñaari façon yu am Sénégal éducation unipolaire mooy éducation bi nga xam ne système occidental bi moo ko imposé mooy éducation bi nga xam ne ba yow sa biir réew boo fa jàngee tubaab yow yaa gën ki nga xam moo jàng wolof yaa gën ki nga xam ne gone daara la te loolu moo am Sénégal éducation unipolaire loolu système unipolaire bee ko imposé mooy le système occidental dirigé par les États-Unis mooy ñun éducation bi ñu am si biir système bi mooy éducation bi ñu tuddee

ñu ne la waaw léegi nag war nga mun jang métier est-ce que yaa ngi ni gis fi Macky waxé tay suñu centre de formation yi mu éducation rek tëb dugg centre de formation te déedéet l'éducation c'est le socle d'une nation ay ndax ina la gaay yi bi ba tey gis nga esclavage bi moo tax ndeysaan nous avons une éducation qui n'est pas indépendante et une armée satanique parce que l'armée c'est Napoléon. Malgré que la fête de l'indépendance là, la fête de l'indépendance là, dans tous les pays du monde, il y a la fête de l'indépendance imposée par une minorité d'individus. Mais que nous avons déjà absorbé, nous ne pouvons pas pareil. nous yi lu ñu formés, formé formé formé ñu may leen sax benn jour bu ñuy défilé man mais pour le Sénégal dafa indépendant ni non man pour fête boy militaire ak fête boy civil yi faut ci talibi di défilé fa lay waxé sur le plan éducation comment l'Afrique a raté l'éducation Afrique mom si éducation unipolaire le dem au lieu si éducation multipolaire au lieu si éducation multipolaire parce que éducation multipolaire bokkul ak éducation unipolaire Tay Sénégal avec une nouvelle révolution Cheikh Anta Diop dans Il n'y aura jamais une nation qui va se développer avec une langue étrangère d'abord un Moi, c'est mon patriotisme c'est nationalisme qui la commencer parce qu'en matière d'éducation si vous da ngeen di jàng làng étrangère xale bi jàng ko ba am vingt ans vingt cinq ans après yow nga bëgg retourne retourner delloowaat xale bi sa bopp loolu c'est impossible mënul nekk xale bi boobu bu xasee am vingt ans système bi wan na ko ne yaa gën xale bi jàng daara système bi wan na ko ne yaa xale bi amoon six ans dem ci atelier mécanicien bàyyi duudu bi jàng fa métier ba nekk mécanicien daanaan système bi wan na ko ne yow ki jàng moo la gën or c'est pas vrai c'est archi école multipolaire mooy développé réew gis nga Amérique ñoom ñoo ñu imposé ñoom l' uni unipolaire mais ñoom ils ont des écoles multipolaires parce que Amérique métier mooy fay tubaab dañ ñu imposer loo xam ne ñoom loolu mooy développé seen réew ñu ñu imposer ñu ko rend ñu c' ça qui m'a fait mal te ñun Afrique dañ ko nangu te xale bi tey bu amee tey six ans dugg sëy yi nga jox ko ay jeux CI ba CM2 muy jàngantu ay jeu xam nga ne à partir de la quatrième secondaire war nga ko mun muy jàng wolofam bu set wecc à de la quatrième BFM am da koy ameek métier comme fii da ngay am BEP restaurant am bac restauration wala nga am BEP mécanique bac mécanique ñun balaa ngaa jàngi mécanique kañ la après le bac waa léegi nga bugg a raw koo xam ne fii la fii fii la fii la ko jàngee yow it kañ la ñuy raw tubaab bi gis ngeen ni ñu système installé pour rendi ñu suñu système éducatif kañ lay raw tubaab bi tant qu'en Afrique le système reste unipolaire pour te dire que le métier c'est après le bac wala le métier ça ne fait pas partie de l'éducation ray nañ leen ba nga dé métier faut mu bokk ak éducation pour xalé bi bëgg ko mu nekk ci nga xam ne bu màggetee ba màgget day nekk ci deretam métier au plus tard à l'âge de quatorze ans adolescence xale bi da koy duggaale ak BFEM système éducatif yi maman yi man ci révolution boobu lañ nekk ci genre nationalisme révolutionnaire boobu gi gi gis nga waxi Cheikh Anta Diop sincèrement gars yi dañ ko dul déglu xam nga man li ma leen wax démb il fallait que ñu bàyyi Sonko yee booy yi carrément ñom Khalifa Sall ak ñooñu ñëpp ñëw def seen quoi boy mais il fallait que ñu bay ñu yété boy yé len ubi réseau bi ubi cerveau yi wax len lan moy ISEM mais tay éducation bi ñu laal tay maki bi mu éducation rek centre de formation bu tudd ISEC dama waaw man man man j'écoute un gamin wala j'écoute ko xamné ne xamul politique wala j'écoute Macky Sall euh, le franc-maçon wala j'écoute Macky Sall qui parle à la solde de ses valets wala boog gan yi la doon waxal mais c'est archi faux pour l'éducation man laaj leen samay élève dem nañu duñu comprendre gymnastique au sol ma jël sabar trois pas au demi-tour ki tak tak ki tak ki rakki gi gi king sabar à Gossas kujin naa ko gymnastique au sol sabar ayo gymnastik au sol waa léegi pour lan ko gauche saut demi tour roulade arrière arrivé écarté écrasement facial ak yooyu sabar bi laa jël expliqué ko ko jàpp not booy géwal yi ñëw école jàpp not loolu ci jàngale la bokk xale bi bëgg fecc bëgg lii mais <laughs> yow ni nga koy jàngal mais jëlal percussion bi xool ndax du ko allez demander à Gossas éducation pourtant je ma dem inspecteur inspecteur je l'ai répété en plein cours encore wow c'est une technique sabar parce que Khalebi bi déjà il a 12 ans 13 ans il ne comprend pas le français tu vas faire tes cours en français maintenant comment l'enfant va te comprendre comment un gamin qui te parle couramment le sérieux et le wolof Arrivé en sixième, tu lui parles français. Non, sur demi-tour, arrière. Non, non, non, l'enfant ne va jamais comprendre. J'ai très tôt découvert ça. Toi, bordel, non, la même chose. ça m'est arrivé. Quand je faisais les cours là, ne vous fatiguez pas. Dès que j'explique en français, où sont les mandingues, où sont les diolas, où sont les Benouk, divisez-vous, où sont les ndiago, divisez-vous. Eh, expliquez-vous. taf taf même pas trente minutes man sama dam koy am ndax xale yi seen biir la ñuy waxante ku nekk sa langue ngay wax sa morom di expliquer monsieur monsieur a dit de faire ça cloche-pied pas pas ah, kii trépied cloche-pied trois pas cloche-pied bi da koy jàng cloche-pied loolu laa leen koy jàngee ko nga triple saut cloche-pied 1 2 réception cloche-pied 1 réception cloche-pied 1 réception xalé bi da ak langam gis bu ak langam da pourtant enseignant yi dañ di très tôt man calculer ce nationalisme là je très tôt calculé man suis ci explication cours di dégg jël wax wala dégg wolof parce que nekkul xalé yëpp dégg français yëpp dégg Inde nindak beresir, def ba réussir am ay médecins yu gën a mag ba tey ñu bokk ci première puissance mondiale yi anglais bi seen école dugal langue indo à l'école ils l'ont réussi ou ils n'auront pas réussi Iran nu ñu def ba réussir génnee langue arabe dugal seen langue perse on ne peut pas réussir avec une langue étrangère c'est impossible munta nekk d'abord munta comment ñu bëgg avec système tubaab bi ne leen lii ngeen war jàngal seen doom nii la seen doom war doxee xam nga lu ñu leen di defal nii lavage de cerveau loo ci gis avec le système unipolaire la tubaab bi réussir na ko xam nga lan mooy unipolaire ñun ñëpp a yem ñu ñëpp ay xaram ñu ñun ñëpp ay baaxandoo waroo respecté imam waroo respecté sëriñ ñëpp war yem même bu alxuraan ne xalifatul ard loolu livre moo ko wax loolu la ñu livre wax loolu la ñu jàngal à l'école suñu la alxuraan a wax lan lañ la wax école alxuraan livre la dañuy fexe ba def sa bopp ni livre la fexe ba def sa bopp ni bible livre la fexe ba def sa bopp ni tawraat livre la or c'est archi faux <laughs> boo gisee livre rek da ngay gis ay kayit kon bu la neexee respecté ko bu la neexee doo ko respecté loolu la système école jàngal kon lavage de cerveau baa ngi noonu système multipolaire bi système multipolaire bu éducation national tey lan lañ ko war def su ma waxee ñu naan moderniser daara waa léegi waay waay lan mooy moderniser daara c'est que man moo boobu tam je pa pas à comprendre moderniser daara daara moderne man loolu je pa pas à comprendre seen mot soit daara day dugg ci biir uni unipolaire bi soit daara day des ci système moomam y a pas de moderniser daara C'est l'école qu'il faut nationaliser. C'est l'école qu'il faut réformer. Il faut rendre à César ce qui est à César. Rendre l'école sénégalaise, typiquement sénégalaise. Rendre l'école, une école productive, une école prolifique. L'école école bo xamné L'école fay école bo xamné yi buñ fa école parce que école école dafa war a jur lu garaaw ci réew laa leen wax barki sëñ Touba école war na jur ba ñit bu génnee di la tegal karo sa biir kër nga xam ne kii école la génne fii France bu la nit tegalee karo rek da ngay xam école la génne ñun Sénégal da ngay gis karo karo karo nit ki mën na teg karo vingt ans du xam lan mooy karo du xam karo bi lan mooy épaisseur bi du xam karo bi ñaata gramme kii nga ciy taf kol pour teg ko man loolu laay xeex nii moment bi Sénégal loolu. professeurs yi bëri na loolu mais il sert à quoi ñoo xam ay këyit lañuy ñuy yore di jàngale ci këyit lépp lu ñu lay jàngal ay këyit ban professeur mooy jàngale métier qui est le professeur qui enseigne un métier y a pas y a combien de professeurs dans les classes pourtant ñoom fii chez les blancs pa a pas quatre matières cinq ngay def gën koo bëri sport rek ay obligation kon ñoom ñu ngi ñuy nax ñoom dañu comprendre bàyyi ñoo yeew ñu ci esclavage éducationnel ba ñoom ñu génn ci c'est ça qui m'a fait mal imposé que ñu une école de formation Isaac, ISEC il nga 23 ans yow le jeune français ont am 23 ans fekk ils mu nekk xoola ingénieur ba jàng na diplôme Ils ba nekk ba agrégation C'est ci bâtiment ñun à partir de 22 ans ngay commencé à Jang pour nekk ingénieur def 3 ans ñu avons la licence ñu non c'est la merde qui nous arrive dans ce système ba pare kii l'Afrique qui est l'Afrique ñun bu ñu nangoo accepter système boobu kan mooy Afrique au juste est-ce que c'est le peuple ou c'est les gouvernants et qui sont ces gouvernants là pourtant Macky Sall li mu def ni du dara topp ay tracem la wan ñi fi ñëw ne maa ngi respecté seeni kàddu maa ngi respecté seeni wax éducation bi fi ngeen ko bàyyi woon colon yi fa laa koy li ma dul mos a d'accord ak gars yi éducation moom buñ ci laalee rek sama xol bi day jóg parce que loolu la sama rab di bañ jóg ba pare mu ne ay ecole de formation ñu ngi fii éducation ay akapes gars yi bàyyi leen ma école de formation yooyu après la bac ngeen dem formé wu ça sert à Europe balaa ngaa xam ne li ñuy jàng baaxul nga tukki ñëw Europe si nga xam ne jàng métier moo wóor système bu la jàngalul métier wax la lay jàngal ak am jot te ñoom fexe nañ ba seen système mu dëkk am jotu toog di wax lu dul guddi doo am temps fuñ la fekk yaa ngi ci terrain bi di tàkk ñun tubaab fexe na ba defal ñu ay série yoo xam ne ci la ñuy banku lépp ci éducation ndekete la ñu jaar pour banque suñu réew maîtriser Africa éducation Si vous détient 40 des ressources naturelles c'est archi faux C'est archi faux L'éducation, éducation L'éducation, il y' a trop de faux et usage de faux dans l'éducation. Je sais que les lu ay inspecteurs yoo professeurs disparaissent. salaire ndax def comment un pays ne peut pas être éduqué Il y a une éducation dafa war a yem rek si kër yi wala dem si école bi Saint-Exupéry a dit Mariama Ba non c'est pas mariamaba Ba l'éducation je regrette li ngeen jang école yëpp yéen ñep dem liggéey gis ngeen ni bi ngeen démé sen service amul dara dara dara lu ngeen jang classe lu ñu leen posé sen service bu ngeen di liggéeyee yéen ñiy dem nek ay orange xam ngeen lu may wax te yéen informaticiens yi ana li ngeen doon jàng école histo géo yeeg maths yeeg français yeeg yëpp est-ce ñëwaat na yéen ñëpp dem université est-ce li ngeen doon jàng ñëwaat na fi tubaab à l'âge de 16 ans lay commencé di appliquer loolu soo buggee defi bac général yaa xam boo duggee def éducation générale nga defi ko mais métier moom da nga koy defi BEP dem sa yoon ba pare langue bi français bi ñuy jàng mënatul nekk gis nga ñun ñëpp a ngi bàkkoo benn affaire mais billahi mënoo am gaz am pétrole yow xoola ñun tey bu ñu dëgëroon këñ Africa boobu dinañ am benn langue boo xam ne buñ dematee Nations Unies dinañ ko def seen casque par force suñu président yi daan yi di wax seen làng man maa xam nga ne ay même ñuy invité nii Sonko télé étrangère war na leen imposer xoola ñu wut interprète moom mu wax wolof mu jeex pour nu war ne nu sommes plus colonisés nu sommes libres tey Macky Sall xool leen imbécilité bu mu def tey discours en français romb kookoy lan il parle pas à nous il ne parle pas à nous soyons très logique bi mu laalee éducation rek laa xam ne waxatul ak ñun jéggi na frontière <coughs> mais yéen mënu leen lire li may wax nii bi mu waxee éducation rek laa xam jéggi na frontière te éducation mënuñu ko laal te laal ñu langue bi foog ñu nationaliser école yi ñi fi gën a productif la ñuy xool mooy doomu daara yi moment bi ñi fi jaar daara génn kese ñoo productif Sénégal nañ ko waxte de école tubaab ñi fi gën a jub bëriwul ñi fi gën jub xool leen suñu procureur yeeg ñoom juge yeeg ñoom Moussa Fall xool leen gars yi rek ndax ñi génnee école du système est-ce que normal lañ ndax ñi génnee école républicaine bi man école républicaine la tuddee daara elle ay kokki ñun temps booy bu la menacé kokki nga régler loolooy école école c'est éducation éducation socle de la nation sans éducation il y a rien dans un pays c'est la merde qui nous arrive actuellement avec nos valets là justification C'est la protection ressources naturelles. wayen voyez, ana gendarme ak dem protéger ressources naturelles. xam nga tey moom si boppam dafa wax ba fenal boppam defal naa li gendarmerie defal naa li police armement yi xam nga lu muy justifier cinq milliards armement yi ñuy jooy depuis boobu ak 17 milliards armement yi mujjee moom la leen doon justifier noonu ne ak xam nga lu muy justifier maa leen gën a pare pour xeex combat gouvernement de combat bi mu doon wax loolu leen di noonu xam nga lu muy justifier ay ganam ñoo fi nekk tey moo tax amul fitu wax waxu candidature da koo jéggi moo tax tey waxu fi dara éducation bi mu laa la tax ma wax si waxi Macky sinon du ma wax si waxam ndax Ziguinchor amul défilé te da ngay gis ay patriotes di la message naan la non Ziguinchor walu ñu défilé bu sono Sonko ah waa léegi yéen doomu waa Dakar yi répété seeni majorité Dakar répété majorité Thiès répété majorité Bignona répété majorité Niaguis répété xale yi primaire répété secondaire répété ñëpp répété waa Casamance waa Ziguinchor répété léegi ñu ne waa Ziguinchor du ñu défilé patriote eh lii laa leen wax démb gis nga ku yeewul boo ko yeewee mu taj dëkk bi man bi ma nekkee man Ziguinchor man bi ma nekkee Ziguinchor man bi ma nekkee Ziguinchor dañ doon défilé sans Sonko boobu il n'était pas le maire Abdoulaye Baldé mu ma doon maire depuis Robert Sagna Ziguinchor dañuy défilé te ñoom ñoo ne Sénégal la bokk noo waaye léegi lan mooy Sonko dafa feebar kenn du défilé loolu fu mu am lii la ñuy waxati gis nga lii laa leen wax chaque jour ku yeewuwul boo ko yeewee caaf yow ba ñaa gis dañuy défilé seeni doom di màcc ñun ñu ne suñuy doom ñu màcc ngeen bëgg ne ma sa normal ndax Sonko daa feebar ah waaye léegi est-ce lii nii ñu bëgg woon tey suñuy doom ñun xale yu ndaw yooyu est-ce lii baax na si ñoom seen morom yëpp di défilé ñoom ñu koy toog di seetaan télé te ñoom ñu répété woon ba pare ba jënd seeni tenue war défilé man xale yi laa wax je m'en ci kaw lu fa am même bu Sonko feebaree président conseil régional mu ngi fa adjoint au maire mu ngi fa non waa léegi tey xale yi tey di seetaan seeni morom di défilé tey Macky Sall tey wan na tey xale xale Casamance si ndaw yi xoola génération bu ndaw bi Macky Sall na leen défilé ndax kan Ousmane Sonko est-ce que c'est bon pour pour les enfants là Mon foofu xale yi laay est-ce que c'est bon pour les enfants est-ce que c'est bon pour l'image du pays est-ce que c'est bon pour les écoles élèves Ziguinchor yëpp répété woon bu jënd seeni tenue ñu xëy na leen défileetu leen est-ce que c'est normal mais wax patriote naan ma Sonko dafa feebar ak gauche droite déedéet waxew ma ci politique yi balaa Sonko di ñëw nu un moo tax suba yéen artistes yu Ziguinchor yi yéen laay ñaan yéen ñi artistes yi comme nanguñu ñu wu leen ren garaawul levé drapeau la ñuy def su doon may Sonko du mu fa sax dem yéen artistes yi organiser leen seen ngandam concert pour suñuy doom comme niñ daan def na xale yëpp génn ngeen dem rond point tëggal leen concert bu rëy waaw fii yow lan la bëgg jaaxal ñu nii nii nii nii ñu défilé ndax non booy déedéet ça c'est trop lâche lii laa leen doon wax s'il s'agit de Ziguinchor on se dit que non laisse tomber c'est normal déedéet man je défends la Casamance parce que ay xale fa nekk comme xale yi nekk Dakar ay majorette ñoo fa am comme majorette ay majorette sacré ñu ngi fa comme majorette Dakar di am suñu culture tàmmaloon ñu défilé yi saf-saf lañu fa daan def organiser ko man Gossas man maa yoroon samay majorette man sama bopp organiser samay élèves ñuy défilé man voilà kon du tey laay ñëw naan leen ay non non c'est que déedéet gëmu li ngeen gëm négatif xale yëpp a yem xale senegal xale yëpp sont au même pied d'égalité xale Guinée Bissau xale Gambie xale Casamance xale Podor Kolda xale yëpp a yem ba xale añaam yi ñoo yem. ñoom ñëpp war défiler comme Macky Sall mo décrété défiler yóbbu fépp fu ñuy défiler di leen répété lo jënd leen ay affaire ba paré ne leen doo leen défiler ba paré ñu bëgg né c'est normal c'est pas sérieux motax yeen yéen Ziguinchor comme wan leen né bokku leen subatam bo leen di dem sen concert si ngoon si leen sen drapeau Russie comme wan leen né bokku leen Sénégal génne leen sen drapeau Russie yeen les enfants de Ziguinchor waaw comment yow muy capitale régionale Ziguinchor ñaa gis à combien de kilomètres 7 kilomètres nga mun dox dem ñaa gis ñom dañuy défiler suba dañuy màcc seen élève dañuy maaj yéen da ngeen xam maaju élève lu muy def si boppu booy maaj boobu te nga jël génne booy yëpp ber leen ndeysaan yëgal leen ne yéen ay rebel ngeen am na parents yoo xam ne dañ siy jooy parce que bu leen sonn yenn parents yi dañ leen naan Macky Sall moo ay rebelle ngeen doo leen défilé effectivement te loolu la point final même bu commission ne défilé wu ça veut dire que du défilé ak Sonko point vous voulez dire que c'est normal quel genre normalité waaye tam patriote eh soyez solidaire Sonko maire Ziguinchor la du maire cité kër góor gi certificat de domicile bu ko soxla kër góor gi du ko defaral boppam day dem ci chef de quartier mënu ko defaral boppam foofu régler leen te Casamance certificat de domicile ak résidence moom moo koy signé maire Ziguinchor la du maire cité kër góor gi respectons-nous un peu fa ngeen respecter population Ziguinchor un peu man du ma d'accord ak yéen seen affaire u patriotisme toog Dakar lu ñu def Ziguinchor ngeen ne c'est normal négatif fa ngeen respecté waa Casamance touti waaw comme ñun suñuy d'hommes dal c'est des enfants comme ça quoi déedéet foog ñu respectante touti yow mom ma wax sànq noonu commentaire ko sama page bi lu la neex commentaire mais il faut qu'on se respecte El malik bu ko waxoon wala ñom jomay ku ko ci waxone damay saga sen day yeen c'est parce que vous êtes des jeunes moo tax du wax yenn ni. mais kilifa sañu wax yenn ni kilifa bu mo ni Sonko dafa feebar no garaawul bul appuyer si défilé bi té ñu jëndal suñuy dom tenue yónnee xaalis pour sen défilé habillé ay école tobor habillé ay CMT habillé ay lycée pour ñu paré sen défilé ñu xey nañu défilé té ñu ñu def ci xam ngeen ñaata xaalis lañ def ci défilé pour xalé sax yek sen bop kontaan ngeen bëgg ñu ne c'est normal ngeen dee leen xam luy état ay adjoint maire ñu ngi faak président conseil régional Sénégal fa ngeen xam foog ngeen ne xeexeex lu ngeen solidaire il faut qu'on se respecte un peu il y a des humains qui sont là-bas et c'est des enfants qui sont là-bas c'est des noirs en plus qui sont là-bas. C'est des humains encore une fois. C'est des enfants comme tous les enfants du monde. gars c'est des enfants comme tous les enfants du monde MFDC c'est un parti politique Nous ñoo créé l'indépendance. indépendance bi fait kese ñoo alternance avec Léopold Sédar Senghor BDS et MFDC dem leen dans les archives ñoom ñoo def alternance am tey seen indépendance bi ñu fait une indépendance kon lu ñu jiñ tey Senghor tey war nañ ko mën jiñ ñoom Émile Badiane tey ngeen bëgg a ñëw seggi Casamance vous devez avoir honte ana parti politique yi di rëy làmmiñ ñëpp kan moo ci jàppale woon tey Senghor bi muy falu wax leen ma ñoom Lamine géey dañ ko contrôle en 57 ñoom Lamine Gueye affaire ñoom Lamine géey ñoom Senghor ak tey waa MFDC yi tey ñoom ñoo compolo woon dem tas ti waa woon solal ñi ay t-shirt xaañ ñi xeer kon tey lu ñuy mënti wax ci Sénégal tey MFDC boobu ak BDS bu Senghor ñoo ko defandoo ba indépendance bi am ak ñoom Mbaye jog Diop ñi tey allez vérifier l'histoire tey ngeen bëgg ne duñ défilé ndax Sonko léegi suñu doom yi ndaw yi saan ay rebelle xale yoo xam ne mënuñu sax sànni xeer c'est une honte pour cette république li ngeen bëgg a teg Casamance ak fi ñu bëgg a teg ñitu Casamance du foofu honneur ak dignité bi fa nekk day leer te commencé na feeñ du foofu gars yi respectons-nous un Sénégal ñëpp ay défilé département par département commune par commune sauf commune Ziguinchor c'est honteux yenn ay bu ñu ko bëggee légaliser si honteux man moo tax des fois yenn wax yi duma si mën sori à plus incha allah.